fi la ñuy defee émission bii def tey di leeral ci mbirum julli ñu ngi nuyu ñu bokkal nekk ci saal bi yépp dañoo ñëw tey pour wàcc fi lii rek muy participation boo xam ni dañu def xam ne ndaw yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal rajo bi nekk seen loxo sàkku ci ñun te lu ci ne mën nañ koo gàntu wala ñu joxe ci gànt ba mu des nag jëm ci yàlla wala lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawati nag ponk bii nga xam ne ci la nekk war cee jooyal suñu waxtaan mu jëm ci tekkiwul ne ñun rek ñoo ko jàng tekkiwul ñun rek ñoo ko xam tekkiwul ne ñun rek ñoo ci war a wax ay waxtaan yu bari la waaye nañu sagal ñu ci nunu ñëw tey rek bokk bokk di fi nekk wàcc ci benn thème boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk di ko bëggee yàlla def tim mënuñu koo ñàkk taxawe rek ñëw taxawe ko def ko suñ participation wala ci nag wala ci jàmbat rek ne dañoo ak ak wéradi ma yàlla thème yun mas a jot danañ ca jéem suñu kémt lay kattan def ca loo xam ne danañ bégloo ñu ko séq kon ñu ngi nuyu ñëpp asalaatu nag la ñuy waxtaane julli muy aazamul ibadat muy li gën a ci jaamu yàlla yi wala li gën rëy ci jaamu yàlla yi li tax ñu tudd ko aazamul ibada dañu wax ne أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح الكل وإن فسد فسد الكل لتخرج جكب وبتردن موغن مكت جامي يلي سبا خير لباخ سبون لبون كون يلا يلا باخ سدو جولي waye wax na ni lay baax itam nak ni ñun rek ñoy def ci wala ñun rek mooy wax julli bu baax waaye dañoo bokk ci ñi koy waxtaane tey ñu indi woon nag surutuha ay sartam ay réglam ki nga xam ne boo ko ci jaare daal dana baax wala ci ko war jaar pour ñu door xam ne danga doon julli surutuha nag sart yi nga xam ne moo am ci julli suñu koy waxtaan dafay a ñaari xeeti sart yu mu dafa am suruutu sixatiha am suruutu wujubiha du ñëpp la julli war du ñëpp nag la seen julli baax du ñëpp itam ñoo julli dafa am sart yoo xam ne bu nekkee ci yow mooy suruutu wujub lii moom war na la danga koy def waaye nag pour mu wér pour mu baax pour ñu man la koo nangul dafay am sart yoo xam ne moom lañu tuddee suruutu sixatiha sart yi nga xam ne mooy tax julli du ko defee ca anam ñu xam ne kat yow am nga yi nga xam ne mooy tax julli war la sarte yi tax julli war war nit ki nekk ba ci njëkk mooy al boo néewut ci diine ji wax lislaam moom julli waru bu julli jotee tam kenn du ngir yow ndax daal julli waru la falaa tajibu salaat alal kaafir bu dee yàlla daf laa nattu wala seytaane ëpp la doole ba nga ànd moom ci la def yow julli du la kon nag sart bi njëkk yi nga xam ne day tax ngay julli yow bu julli jotee ba ci njëkk mooy alislaamu da ngay bokk ci diine ji ñuy wax lislaam ñaareel ba mooy al aqlu da ngay ànd ak sam xel fala tajibu salaat ala majnunin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam rufia alxalamu an thalatha an innaim xatta yastayxida وعن السبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل كاداي ني نيت ني نيت ني يالا تيغي دي سي موم دوغالام توپ لين سي خار سي سير ديف اك سيدو نياك ديف غناب بوكي دي ني واخ الاسلام داغي اندك سام خال دوف تو جولي ñetteel ba mooy da ngay ànd ak da ngay am xel awalan ba ci njëkk mooy da ngay bokk ci diine ñuy wax lislaam saaniyan al aqlu mooy da ngay am am xel saalisan al bulugu mooy da ngay majeur majeur nag buñ ko waxee dañuy dellu ca wa shurutul bulugi sàtti majeur ñett moo koy wane ci nit ñett moo lay wan na la majeur nga ñett yooyee su nekkul ci yow yow maseeroo tu ko maseer jullit waragul ci moom bu koy ñeenteel ci satti julli war ci yow mooy duxuulu waxtiha waxtu wa day jot ndeysaan danaa ko wax lool mu dëng wala ma wax ko léegi-léegi mu reelu trop ndax wax dëgg yàlla làng boo koy faral di ko expliqué moom daf ko jëkk bu ma ko jàngee te mënu ma soo ko mënee te ayuma ji muy avant l'heure c'est pas l'heure l'heure mais après l'heure je n'ai plus l'heure c'est l'heure rek mooy nettali woon wu wu la xëree dégg di nettali woon woo xam ne yu réel la li ko waral nag yooyu yëpp am ci mooy ki koy wax du ko jàngul du ko mun te des fois da koy jéem wax léegi déjà ma leen fekk ko ci nañ nañ ma baal boobu woon mooy bala war moom julli day jot du xuuli waxti haa mooy dugg waxtu wa mooy heure ba jot gis nga ñeent yi jamono bu nekkee ci yow yooyu la ñuy tudde suruutu wujubi salaat sart yi nga xam ne dana waral ci yow bu julli jotee ñu ne la jógal julli wala ñu jox la sa tal na la demal jàppi waaja julli ci waajtaayu julli la bokk mooy sart yi nga xam ne bu nekkee ci nii rek moom kooku julli war na ko ba ci njëkk la nu xoon sànq mooy al islaamu nit ki bu tànnee lislaam ba dugg ci bu julli jotee moom julli war na ci moom saaniyan al aqlu mooy nga rek sam xel mooy nga wér nekk nit ku nite àndoog sam xel bu boobaa rek julli du la war ndax bu boobaa doo xam nu muy tëdde wala nam mu organisé woo doo ci mën a jaar kon sart ya ca mooy al islam ba ko ñaareel mooy al aqlu da am sam xel bu ko ñetteel mooy duxuulu waxtiha beneen ba ko ñeenteel mooy nga suturaal say awra ndax boobu gën a jullee dugub bi neen ah julli ko du baax moom moo ngi jullee dugub neen waaye bu nit toppee ci gannaaw sax jullee du baax ndax boo sëggee rek sa lépp na dumm te ku sa lépp na dumm nag nga def dugub bi neen ko du baax du wér kon yàlla loolu la ñuy wax julli def dugub bi neen du yooyu mooy sart yi nga xam ne dana waral julli ñeenti sart yi daal bu nekkee ci yow rek julli war na la waaye sart yi nga xam ne mooy tax sa julli wér julli wér mooy ah li sa julli baax na ndax lu tax ñu ne li sa julli baax na biñ la seetloo ca dëgg-dëgg seetlu fekk na na yow li nit làmboo pour jullee wér làmboo ko loola kon sa julli baax na waaye nag bu baax gi dëgg-dëgg moom bu ñu la waxee sa julli baax na dina ko dana laa seetlu ci anam bi ko defee muy bu la yàlla sant bu la yónnent bi sant sallallahu alayhi wa sallam waaye nit moom dong nit simple mel ne man munta waat ci julli kenn ne gii julli wér na wala gii julli ban bu dee sart yi nekk na ci yow te nga teg moom mooy surutu sixatiha awal ba ci yëkk mooy attaharatu da ngay laab laab mooy da set set nag xam naa tax ñoo jóg tey waaye nag ci la bokk tax ñoo jóg tey من سد بدنك أطارت موينغلا من الحدث الأسخر تطج مو خمنا تطج نولا الحدث الأسخر وهو عدم الوضوء ومن الحدث الأكبر غي غي ست تطج من نو ما ينغ ست إتم تطج مو خمنا ميوم مغلا وهو عدم الغسل موينيك سنغو تطج مو مك مو موينيك سنغو te yow mii kët ba léegaa julli laaj na ci yow nga sangu kon da ngay fexe ba set yooyu ñaar yooyu yëpp ba ca tege di ñaareel ba mooy sitrul awrati li qawlihi taala xuzu zinatukum inda kulli masjidin ñaareelu sart ba mooy nga suturaal sa awra yaakaar naa soo juumut waxoon naa ko keroog góor dafa am fa awraam ñam limité wu jigéen tim dafa am fa awraam yegg wala dafa am moom itam fu mu yem bu dee góor mën nañoo wax ne le dale ci bëti óomam ba ci juma yooyu daal bu ko sàmmee su ko laxee su ko suturaalee ba nekkul ci bitti feeñul rek mën na ne awraam na moo xam ke loolu la sol moo xam lu mu sol moom daal bu laxee li ci óomam ba ci ju ma xam rek sutura mat na waaye ñu ne jigéen nag yaram lépp moom sutura lay doon ba mu des ay tenki loxoom ak xar kanam moom léppam sutura des tenki loxoom ak xar kanam waaye léegi lan mooy àttee sama ñoom dama tudd seen yaay te sama yaay nekk sama yaay benn garaam bu ne allah akbar rek day yëkkati ñaari loxoom pour kàbbar mooy li muy njëkk def ci julli tamit farata li muy def kàbbar bu kàbbaree moom boo ko tànnee dootu day génn ci biti waaw ñu ne kon bu boobaa lan mooy atteem li mu def wala ah comme que julli na awra ngi biti rek kon jullee mut kon ñu xool bu baax suñ demee bay dugg ci julli lan la war a duggee ci julli seetur la awrati المكشوف مكشوف العورة الزينة في الآية الثياب لمنا مجي خذوا زينتكم عند كل مسجد mooy seen yére ngeen sol yére yoo xam ne yére yu civilisé la waxoon civilisé yëpp ja waaye yére yu jot la yoo xam ne dana leen mën a làqal seen awra ngeen nëbb ci seen awra ndax awra yooyu kat dafa bokk ci sart yi nga xam ne dafay wéral sa julli من وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة المرأة فيما عاد وجهه وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ونجي جو jigéen joo xam ne ji ولكن طلنا تجس درت وسن يلا نعو أجوليم لذو كلام غو خمني دكوي مورو وسئل صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة إذا في ضرع والقلب بخير إيذار صلاة المرأة بخير خمار فقال إذا كان الدرع سابقا يعطي ظهوره فخدميها جيجينو جلي جيجين دال جلي ذو القلق muro kooku moom du julli koo xam ne gii bu yenu maanaa la loolu itam mooy li nga xam dana wéral julli kon julli balaa wér li koy wéral mooy nga laab ci deret ci ñaari deret yi yi nga xam ne gën nañ koo xam ci benn bi jigéen ci toll ca atam la waaye benn bi jigéen yàllaa ko doon ci moom jamono boo xamee ne def na ko ay weer muy wàcc ci moom muy dereti mm, dereti mbërëg ak dereti wasin mbërëg mooy feeñal ak ngoneem wasin nag moom ki toll ci am doom rek mën a am doom moo koy war a am doom moo koy gis ñetteel ba mooy istiqbaalul xibla foo mën a julli sa julli du normal sa julli du baax sa julli duñ ko mën a nangu loolu rek ñu jublu xibla xibla nag ci ñun mooy penku est-ce que ñëpp fii ñu jublu muy penku rek wala fi tudde penku mooy penku ñun am na ñoo xam ne fii ñuy jublu ñun bu ñuy julli mooy suñu penku ñun. te yàlla subhaanahu wa taala ba ñuy sant ñu julli jublu fa mooy nan sant bu ñuy julli rek nañu dàkk fi ñu kaaba gi fare nañu dàkk fi kaaba gi fare fi kaaba gi fare ci ñun nag mooy suñu penk kon loolu mooy ñetteelu sart yi nga xam ne day wéral julli pour sa julli wér wane ne julli baax na kat mooy da ngay julli penk ndax moo ne wa haythuma kuntum fa wullu wujuhakum shatrahu fu ngeen mën a nekk dëkk bu ngeen mën a nekk àll bu ngeen mën a nekk pàcc bu ngeen mën a nekk jëmal leen seen kanam rek wetu kaaba wetu kaaba si kaaba gi fare mu ne an al ajizu fi istiqbaliha li xawfin aw maradin aw naxwaha yasqutu anhu hada fard ki nga xam ne nag jublu ci moom penku munta ne jafe na ko wala yombul ci moom ñu ne bu boobaa sart bi dafay rot ci moom يسقط هذا الشرط لعجزه كما أن المسافر أن يستقبل على ظهر دابته xaysuma tawajjahat mooy daal ki nga xam ne dafay tukki nekk ci kaw ngaa waral di dem mom jabal boore julli rek na war ci ko fasam na jublu ci gannaaw fasam wa mustaqbilun min makka ila madina haythu tawajjahat bi julli mom nga xamne mom lañu wax sart yi nga xamne moy tax mu nek ci doom adama ak sart yi nga xamne moy tax mu wir dafa am ay faraid ay farata yoo xam ne noonu la yàlla bëggee ku ca boole farata yooya di ko defaale bari na kuy julli tey bari na kuy julli xàmmeewuñ farata bari kuy julli boo ko laajee lan mooy faratay julli du ko wax farata nag mooy lan mooy li nga xam ne soo ko bàyyee ci julli rek julli gi yàqu na moo munta ñàkk ci julli munta ñàkk ci julli farata mooy loo xam ne yàlla subhanahu wa moo ko si santaale soo ko bàyyi ci li def rek li naa noonu ma amee farata doon laa amee sunna sunna mooy loo xam ne soo ko ci boolee soo ko defalee da nga am yoon waaye soo ko bayee itam nag soo ko bayee itam nag kenn du la mbugal farata mooy loo xam ne boo ko defee da am yool soo ko bayee dana la mbugal sunna mooy loo xam ne boo defee am yool waaye soo bayee moom kenn du la mbugal moo am nag ay farata yoo xam ne itam ci julli معاملني بكلمني مطد فرائض الصلاة جلي جامو يالا لا بو خامن كين واتيو محمد صلى الله عليه وسلم واي محمد موكو جلي موكو جلي دافكو جلي انا ندي بني جانغ ولا بني جانغنتو باي ماي دون رضي الله تعالى عنه مذلن كو ونيخ ولا وي ام صلو ولا وي وخ لي تلي كو نيب خامي لي نيتال لين ترقا يغن ابلو باغي لاغان تامي تول تاك جبريل ملني كي ني تون دفا وار كاي بو وار بو تودال البراق البراق دامر الله yoo xam ne yii fu bët bi tege rek tànk ba mën na faa fu bët bi tege rek tànk bi mën na faa moom toujours rek fu bëtam tege rek tànk maa ngi koy tege moom la war ba bay dem yonent bi dem guddi gi yonent bi demee moom la ñu tuddee kasu rajab am ñu ko tuddee nag aw weer weeru kasu rajab déet weeru kasu rajab amul bisu kasu rajab am mais weeru Kazu Rajab amul bis Kazu Rajab kazu ab lim la lim la kazu kazu soo ko boolee rek mooy vingt sept lee jox la vingt lee jox la sept nga boole sept ak vingt muy vingt sept moom la ñuy wax Kazu Rajab nga dégg ñu naan ci weeru Kazu Rajab waaw ca dem ko suñu fan waaw suñu fan nangam nangam nangam mooy nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee woon julli te yàlla invité woon ko ca moom xam naa lan fa gis wala ak voyage ba na mu demee kenn mënu ko waxtaane rek ci benn jalsa bi jalsa yu bëri lay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba la ko yàlla woo mu ñëw ca moom fu mu fekk yàlla ah ba mu yegg sidratul muntaha sidratul muntaha fala sallallahu alayhi wa sallam demoon lan la fa gis xatta raa ma raa kenn xamul lan fa gis nangam ak nangam la nangam ak nangam la nit mën na cee wax ba sonn nit mën na cee wax ba sonn xatta raa ma raa سرسل الحاج مالي للوغ حتى رأى ما رأى من أي الجزم فلا محمد صلى الله عليه وسلم دمون جلي جلي فلكو جلي يلا بامو دمي يتم لك جوكو ورجرو بمين يوم بمين يوم ومجروم لإندي وهي بقى يلا جوكو ورجرو نياتي جلي لكو جمعون نياتي جلي li mu julli itam bari na waaye ak lu mën a ba mu ko joxee nombre ba mu ko jox tolloon na di juróom fukki julli ci ci yenn wax yi xëy waaye daal joxoon na ko fukk bi mu ñëwee ba ci yàlla Moussa alayhi salaam mu laaj ko ne ko lu la suñu borom jox mu ko yàlla di jox na mu julli noonu la ko joxee mu ne ko nii de yàlla jox na ma juróom fukki junni Moussa ah, dafa mu wàññil la parce bu toll nii de na wala joxoon na ko yonent yi la jiitu woon kon loolu di mën neen ci dégg am na xeet wu jiitu woon xeetu sallallahu alayhi wa sallam daan lu julli ndax Moussa wax na Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam demal sa borom mu wàññi la lii jox la ko ñoo xam ne ñoo ëppoon saw nit doole ñoo ëppoon saw nit lépp te ba leen ko yàlla joxe mënuñu ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dala ba ci yàlla yàlla wàññi juróom mu ñëwaat ba ci Moussa mu ne ko dell laaj ko ko wàññi. ba mu jekk yonent bi waxaat ne ko Moussa mu naa mu ne ko rus ko sama xam naa tam nag bu ma demee ba wàññ waaye nag rus na ba yëgi juróomi junni ko joxee juróom yi dégg ma jox la waaye nag juróom kon julli gii ñuy muy julli juróom juróom fukki julli juróom la yaam ci man kon waxtu woon na juróomi julli la wala waxtu bu ne rek juróomi julli wala waxtu bu ne fukki julli la ba juróomi nombre yi muy suba tisbaar takkusaan timis ak gee muy juróomi waxtu yoo xam ne bu nu ko jullee ni ko yàlla ah, fukki julli yàlla ñu ko yàlla defal te defal ko bépp julli kon تلا محمد صلى الله عليه وسلم جلي جلي تي يالا سونو بروم با انديكو تي نين جوخنوكو نك يالا لي يوني تي موم يان وقت لاكوي جولي اك وقت مو جوتي نك نان لاكوي جولي لول تيم يالا كو جانغال موي وقتو ده رك وقتو جوت رك دا فاي يوني ملاك تي موم مو نيو ني خمنا لي جي اربي ñu jàpp heure booba muy heure am yàllaa jàngal junne nag ci heure koy def nag bu koy julli nan la koy julli ko xamal ne ko ñaar la tosbaar ñeent la tàkkusaan ñeent la timis ñett la gée ñeent la muy juróomi julli yoo xam ne soo boole woon nombre rakka yi ci julli kon faratay julli fukki farata ak juróom-benn fukki farata yi ak juróom-benn soo ko respecté defe ko ne ko yàlla sante baax na waaye nag léegi-léegi juum am léegi-léegi fàtte am da nga dem di ko jàng balaa jeex xëy na mbokk bi ñëw. bu dee dañu wax xaw jub na bu jubul yàlla ñu yàlla baal waaye su dee jub na su dee leen wax jub na su dee leen wax tam d'accord nan ci ah am na lu ñuy tudde sujudu sahwi pour juum ci julli moo tax ñu indi ko ndax léegi-léegi julli ba pare yaakaar ne ñett ñeenti nga julli fekk yow julli nga ñett rek yem ci wala juróom nga julli juróom benn nga julli dangaa yokk wala nga ëppal léegi-léegi nga matal léegi léegi nga ñàkk a matal muy ñaari rakkaay yoo xam ne dañ ñaari rakkaay yoo xam ñaari yoo xam ne dañ ko cee ber pour nit di ko defare julleem ndax man ngaa defar ba pare yaakaar ne mat la nga te mat man yaa yaakaar ne manqué te manqué lewu juum daal ci julli moo tax ñu tudd ko rakka tasawi mooy ñaari rakka pour boo juumee sa julli ah nga def ko moom itam muy sujudu sawi muy sujud yoo xam ne danga koy jamañee jamono bu dogalee bu jamono bu yàlla dogalee ci yow ne juum nga ci julli nga def ko ngir sa julli door a mën a valable mbokk yi su ko defee xam naa la ci jub moom ci yàlla rek la bàyyi ko li ci dëng lépp ci man la ñu ngi baal xaq ñëpp ñu ngi baal ñëpp a ñu ngi gërëm tim xam ne ñoo nekk ci rajo bi ñoo koy taxaw soo fi ñëwee ñoom ñoo lay wéttali ànd ak yow pour nga def ko ni nga war a defee bu baax bi mat waaleykum salaam wa rahmatullah in aradtu ila islah fama stata'tu وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولاي صل وسلم